ah bikum docteur ba seetoon aji saar yoon déglu na ko niki démbu allah libération moo ñu ko xamal Alfousseyni Gaye gynécologue la bi aji saar waxee ne Ousmane Sonko fa ko wiyole ca moom la demoon mu seet ko ba mu ko seetee nag ba pare fa weddi waxu aji saar ja ne ndaw sii ma seet séqut góor boobaak léegi lu mu gàtt-gàtt mat na benn fan loolu la def ca rapport médical ba jox ko waa gendarmerie yéene kaay bi ne démb nag bi ko doyen de justice bi dégloo fa dëggal lam bindoon ca kayit ba maanaam weddi na aji saar fañ yeggee ca moom am na sax ñu fa tudd naka noonu maître saw bi ko woo laata aji saar di dem fa wax dëgg ca kanam xàttekat ba toj yax ba ak ay xibaar yu garaaw la neen lu garaaw lu xam Sénégal mooy suñu hôpital yi presque deret xamatut fa maanaam ku feebar soxla deret fa xam ay mbuus yuñ lay sampal soo sowetaas deret li ni mel nag boo moy fay jeex tàkk ci réew mi te boobaa muy musiba naaru laay l'observateur moo ñu ko xamal yow seetal hôpital bu Tamba fukki mbuus a leen dese bu Kolda fukki mbuus ak ñaar Thiès ak Diourbel ñoom fa jeexal tàkk Ndakaaru Njaay li ñu xam ci deret ñetti fanu yàlla moo ci des pour mu jeex yéen kaay bi mel ni ko yuuxu wàllu na liy jot jot ñoo askanu nañ dem maye ji deret la mu nar a maye moom Macky Sall du deret de waaye ndimbal jëmale ci askanu Sénégal yi nga xam ne fa ñoo ndóol ñàkk xiif vox populi na ko rawatina dund gu cher gi tubaab yi nag waa FMI yi ànd nañ ci loolu Sénégal bëgg a def te noppi nañ sax ngir dimbale Sénégal ci koppor ngir mu taxaw askan wi le soleil yéen kaay mel ni ko naan sénégalais kay muñ leen rek jafe-jafe teen bu njëkk bi ko des na yeneen ñetti teen yu ñu war a bënn ci la génne bañ tàmbalee jaay xanaa su boobaa réew mi dana neex li neexut nag mooy diggante ñu yor wàllu tourisme hôtel yeeg ñoom seen ak jëwriñ ji leen jiite ba tax enquête yéen a kaay coow li ni mel fa la xëy addu na gaa yi de waaye ñi nga gindaliku nag leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na daam mbooj syndicaliste daam mbooj bañkat waxkatu dëgg dem na fekk ji waaye yeewi askan wa ci wati député yi di ñëw si ko quotidien moo ñu ko xamal daam mbooj nekk député a kaay bi ne du Adama Gaye tamit journaliste fekk na gaaña les si ko yi kaay mel ni ko naan kay Macky Sall faa ko jàqal ginnaaw coalition yeewu askan wi am na beneen coalition bu xam doole boo xam ne ay ponkal ngonk yu aay ñoo fa nekk ñoom nag fa ñoo duppee seen bopp coalition Aar Sénégal Thierno Alassane Sall nag mooy seen tête de moo leen jiite seen caution xaalis bi ñu war a joxe ngir bokk ci wote député yi joxe nañ ko niki démb fukki million ak juróom <laughs> bokkum Abdourahmane Diouf dem ak ñeneen l'observateur na leen hee fa ngeen a foog na Macky Sall fay toog di xoola rek ngeen ñëw yenu bécci ci wote député yi <laughs> yéen fa ngeen di fontu Macky fi mu nii ma ngay defaru kàngamam yi ci wàllu politique tasaara na leen ci biir mi na acca dem leen ngeen liggéey ji wax na leen tamit képp ku bëgg bokk ci liste yi ko war a doxalee laa si na ko moom koy fa dajee ak kàngam même ñu koy jàppale ci wàllu politique professeur Moussa Diaw ci l'observateur mel ni ku naan ko pourtant Macky seetlu woo waaye li tax benn bokk yaakaar nar a ñàkk sa bopp yaa koy def te ko a ah, yow seetal nangu nangu maire yi xam ne fa ñoo nekk ci opposition bi ku jégi mbiru transhumance ralliement gis nga loolu xamul benn njëriñ ndax sénégalais fi mu toll ni fa ñoo xeewu toppuñ benn responsable politique mel ni xar mu topp boromam fu mu la xëcc nga dem déedéet sénégalais yi bu la wóoloo fal la nga nekk maire bokk ci ku jégi Macky Sall dig la xaalis wala lu la mën a dig nga dem fekk Macky na la wóor na yow kenn rek yaay dem waaye mboolam ñi la faloon fañ lay wan ginnaaw seeti keneen kuñ fal ndax askan wi ña ci gën a bëri Macky Sall lañ waxut ci moom dara ba tax ku dem ca moom sénégalais fa pare ci yow professeur ne li may wax nii nag li koy dëggal mooy Idrissa Seck moo moomoon Thiès xëccewut ko ak kenn waaye ba mu fekkee Macky Sall askanu Thiès fañ ko war na ko fi nga dem baaxut ci la ñàkkee Thiès loolu nag moo nar a dal Macky ci lii muy def nii la mu def moom Barthélemy Diaz mooy jël capitaine ba li ni mel ñu ca ànd xam nañu ca àndut bokk na ca ña ca Babacar Fall bu GRADEC fa xam la ne bi tënk doxalinu maire yi moo jox sañ bépp maire xam na sañ-sañ jël liggéeykat bu ko neex ca biir ba rawatina cabinet ba lu ci yoonu nit Gallo Mbeng na ko hee d'accorduma ak yow de wala boog même bu ko ko yoon mayee mu jël liggéeykat fa ko war a yóbbu ca conseil municipal ba ñu càmbar ko buñ ca àndee baax na buñ ca àndoon na ko na ko gis nga yëf yi sax fa dëppawut ak décret bi du yoon ci gàttal yaram Real Madrid xamal Sadio maane nag nee na moom fa bëgg a gagné Ligue des ba FA Cup lépp la bëgg a jël man ma jël Vox Populi fekk fa njiit réew Macky Sall fa doon inauguré daloo jumaa Blanchot ca Ndakaaru bi nga xam ne tubaab yee ko fi defoon yeesalaat bi jël na xat yu bari lañ ca dugal nag jege na ñaari milliards ba tax bés bi yéene kaay ne ko moo taxit fi mu toll ne farafet ba jéggi dayo Macky Sall nag bi muy dem démbu paleem ba la jógee dox ak tànkam dem ca jumaa ja dugul oto de fa doon natt boppam ndax Sénégal yi bëgg nañ ko déet ak wote yi di ñëw Vox Populi na ko ah mbooloo mu bëri toppoon na ko de ñiy topp weeru koor wi ngir ngir xam kañ la korite gi Sénégal ñaari fànna moo fi am ñuy seetal seen bët muy commission bi ak xarala yu yees ñi ñuy wax ay astronome si du quotidien ne ku nekk nag sénégalais yi ngi lay déglu su ngeen ma dégloo man ma wax leen tooxi doona bu mag bu xam ca ay ralaawo yaw seetal benn professeur moo wannu loo lor elewam bu jigéen bu mu doon jàngal bu xam fukki at ak juróom ay alalu procureur la quinze ans bu maatam ñaawlu na li ni mel bés bi yéene kaay ñi ko xamal hmm, waa ma ne waxuma la iyaa waaye képp kuy doomu aadama rek soo ko dégloo fa nga koy ñaawlu sa elaw soo ko bëggee demal ñaan ko ay waa juróom takk ko muy sa jabar waaye koo xam ne innocente la xale bu ndaw quinze ans majeur agut ngay xànd ak moom di xànd ak moom ba xëy na loo ko lor ci koo xam ne xam-xam njub mbaax lay xaar ci yow léegi nag nañ xaar lan la yoon di def